am na mag ñoo xamante ni ku leen yeewoon wax leen ni leen surtout Babacar Diop Ñaxeer ak surtout Mam Ndox ak Baay Ndox kii tuddoon may sa tëddi kii tuddoon ma xujja Diop tabarakallahu xeetu Seydil Hadji Malick di leen xeeñ mu ngay xeeñ bu ba ñëw Tiwaawan fekk ci góor bu tedd boobu nga ni parasol bi mu yor nga tànga du ñur sama rak am sa jot noonu la koy waxee sama maam may sa tëdd bi ñu tudd may sa tëdd bi mu ngi dëkkoon ci benn dëkk bu ñuy wax alku nangal góor gu ñuy wax góor gi Maxtaar Sall ko fa xool ba mu rafet lool ñëw moo mu sut rafet lool mu ne ko sa rafetaay bi de kenn doomu laa la yéene muy góor gi muy dégg ci Tiwaawan ñu koy wax Maodo Fawa nañ dem muy yóbbu la teg la ci mu teg la ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu teg la ci loxo yeneen mu jébbal la suñu borom nga dëkk ànd sama maam ànd ak moom ñëw si laaj maa ni tuddee ko Seydina Mouhamad boole ko Cheikh Sidi Aboubacar Si Serigne Babacar Si soppi turam tuddee ko Baye ba turam fay na ndax jël nañu Serigne Babacar Si lañ génn saa meneen maam mu ñuy wax Babacar Diop Njaxeer dëkk ci dëkk bu ñuy wax Njaxeer yaay Serigne Mbaye yebal ko Tiwaawan mu ñëw seeti magam bi ñuy wax Amadou Mbaye Maodo di bàyyi alxaaji Mansour Mbaye ni ko demal boo demee am na góor muy dégg ca jaam de léegi naa ñu gën a Tiwaawan nekkoon na ba def ci yow lu suñu borom lu ci yow ko jëm lu nekk ci teen bi di duy satal si gaañ wàll ni si kit dem ci moom ni ko xanaa sama nay seen mu mbay mën a teewal mu ne ko waaw mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na nga yóbbu ci góor gu tedd boobu ñuy dégg mu ne ko xaaral ànd ak moom di egg si Seydi El Hadji Malick fekk si si Ahmed si ba ca sëriñ di egg si ànd ak seen Babacar si tidak maani jàpp ci loxo Amadou Mbaye Mamadou ni Amadou ak Amadou wala ko tidak Ahmad ini Babacar kan Babacar bis boobu la sax maam Babacar Diop Ndiakhate tudd Babacar moo war a ànd Serigne Babacar Seck Babacar Diop Ndiakhate ba tey maanaam sama papa Moussa Diop aani bàttam bu di maamam sampah papa Diop di bàyyam Seydou Mbour mii doon jaani bàttam bu di yaayam dégg li mu def ci réew mi ma ni Sénégal bu doon aw yàlla ma ne aaj dóor na ci aw yàlla mu def kër gën bu doon tuddee suñu ñaari maam yooyu nag tey ku leen yeewoon wax leen ni ngi taxaw ca xadara Cheikh Sidi Babacar Sy ci saa bu tudde Serigne Babacar Sy di sant Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy xam naa ni seen xol yëpp ubbi dina koy waaye mbokk yi ñu leen di wax leen bis bi Seydi El Hadji Malick képp doom rek moo tax ñu def ndax li ko waral sama rek Pape Moussa Diop day wax ni Seydi El Hadji Malick tax na ñu may may soxna may nañ lu xaalis ngir Mame Maodo may nañ lu gër ngir Mame kon ñun si la may lebal bor boo xamante ni mënuñu am rek dawal ci waaye Pape bi nag ñoom ñoo xamante ni dañu cee jàppal di ci jiital bu baax Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour xalifa général des Tidianes di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu jógee te ànd ak wér ci barke yonent bi rakam bi tedd di Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñaanal jox lu ndigal waaye tabarakallah ñuy jooy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ñuy jooy te noppeeguñu bu ñu toogee ci saal bi rek ñun suñu xel ci moom lay dem dama yàlla yokk leer ci barke yi ak ku ne amit yàlla ci bopp waaye nag ñu ngi sant ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale dinaa ci lim ay nit. ñi jëlee sama rakk Pape Moussa Diop dina ko mottali ndax ku ne xam na ni bis bii li waral doomu aadama yëpp daal di ñëw tey du ñun mbokk ku yaakaar nit ñi ma rakk Pape Moussa Diop ñu war a indi nax na sa bopp amoo xam ñun kese su ma woon def suñu dugg bopp yi kenn du kon li ñuy ñaan suñu diggante yi mooy yàlla buñ ci gis suñu bopp te dofuñu gën a jàpp ñu xam nañ ni ci ñun. xam na ni ci ginaaw la man diwi si waay bi waaye nag yéen ñi ñëw ngir si daan maay lu si daan maay am yàlla nekk ci bopp ñu ngi sant bu baax monsieur le maire Gagny Mbengue le premier magistrat de la ville ñu ngi koy sant bu baax dama wax ni ko bu ma dama am keneen fu may jaar ndax dama koy bu ma diyandalaag ma biram si si ak si ni maram baax naa jéeri mi ci dékkale amel mi ci kongo malik fanta jaay ma jël ben sawro bari waaye ma neexee fa damay bàyyi foofu ñew ci nga xamante ni mooy parce que abdou sisse maa jël bi si laaj maa ngi sant jàkk fi ma mo la wo kon damay wax ni ko la neexoon ke genn ci administration la dem nekkub sëñ bi ku la fa la ñaan boo ko ñaan ak ñu ngi lay sant bu baax bis bi jakk na ci logo bëgg yàgg ñaroo ci barki ñu

surtout ay wala saako nga xamante ni sama maam keroog bi yéen ci bi ñëwee Madinatul Munawwara sama maam ko daal boo déggee ñu naan al muhaajir wala sax yow yéen a ngi la sama sama maam bu ma xool ceeb dina ma mere ndax maa la bëgg je t'aime ndax moom jàpp nga ci bis bi li ba gën a neex mooy nga ñëw fi 9h ànd ak ñun di organiser bàyyi la yëf yi dof ñu ne la yow mii yaa ngi wax nit yi gu ma la jege administrateur civil médiation ah. loolu laa waxoon président Macky Sall ma ne ko kii mooy yëngu bu ma la IAC aar ko mu ne ma IAC aar yi mu ci doon ma ne ko noonu laa ko xamee ñu ngi lay sant jërëjëf yàlla na ko xam. Abdoulaye Ndiaye Ndiaye bi lay fekk gàllankoor taalibe sëñ Abdoulaye Sall Amin borom ànd defar li mu waaye papa Abdoulaye Ndiaye la Kula xam nañu ni bàyyi mu nekk dem na ko jaxase sax seen xaymaa moo amul ku ma amul ñëw nga délégation bu mag la def yëkkati lu tuuti ay sàmm ñu ngi

yoo xamante ni bàyyam trois heures du matin mosu ko fekk ci la pour trois heures du matin jotee mu jub ñëw fii ci jàppee Cheikh Sidi Aboubacar Sy noonu bu teg ko ñëpp jub nii leen ñëw leen jàppee seen borom bàyyi wax ma doon wax fii sax mooy maama mu jur ndayam jeebaa kon xam loolu tàmmee ci waa ci wu dëkk bi bokk na ci mooy saa yu may sa kii sa ñu bàyyi sax dimbali ko ci tànku nit ñi xam la ndax nit bu baax xale ba ci nga jàngee sponsor la nag bokk na ci sponsor yi ci bis bi jël alalam def ko ci bis bi di xale jàngee Tiwaawan am xam-xam ubbi cabinet dentaire nekk fële ca bor saa yu loo bëgg yaa ko xam yàlla ko yàlla defal ci barke yéen fii sagal xam yàlla la yàlla sagal moo beneen xale nag bu ñuy wax Abdoulaye bu ma neexee moom ma di ko salu dara so yére abdullah maa ko xott jox la xale yi ñu ñëw lañu abdullah maa ngi nële ba pare yëkkati sam lam xaalis bu duum jox yore abdullah li ñu defoo abdullah maa ko def te kenn ko wax kenn am ci maqaam seen baba parce que boo ko yaa ko wax dinañ ko def jërëjëf ak baba dama bàyyi wax nag ba xar génn sama génn génn mais kenn soxlu mu nit sam ginnaaw ko soxla papa la jërëjëf El Hadj waaye boo doon gis moom la sax maa la day nga continuer ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal Serigne Babacar Sy ibnu Serigne Mouhamadul Mansour Bor xaw mi ibnu Seexul Xaaji Malick al Xalifatul Xaam bi tarixati Tijaaniya yàlla na fi yàkkati da ko ñëpp wax la Seydi Xaaji Malick nanguwul yëpp Cheikh na Tidiane ràññu ko ko tey ku bëgg ku bañ moom la yàlla dogal ñu ràññ ko ko kon bu ñu taxawee fii la séeréer ba waxoon ni ogaa nga tig tigoo taxu ñu ne ko loo wax mu ngi boo gisee dara rek dara tax sa maam ay wàllu muub sa maam nguda muub sa maam ndox mbaay ku ma ci ñëw dañoo liggéey ba tey seeni sët taxaw di leen tiitaroo dañu bëgg boo liggéey suñuy sët di tiitaroo tawoon nag ab wàll dañ koy lor balaa tëdd jot beneen bi ci jege mooy bis bi dañu Seydi Hadji Malick rek képp donc ci biir kër Maodo ñu tànn ci ñeenti mag di leen ci rendre hommage te mag ñooñu li tax ñu tànn leen mooy mag ñi nekkoon kër Maodo te yàqunu kër Maodo lu defar nekkoon وخلو سخر بيت علاج باي ديغن غا خامني كرو سي سي الحاج معني دنج كو اندي تودو كو وديو كو تيتلو على الموس نيكو ما لاكو دي واي علاج موس اتاشن موني تاو مو ولي غي نالا علاج علاج باي ديغن يوم الخيار كوكو بون كوي راند كو ماج كي بيس مو تودو سي الحاج معني تيت ني ما كنت خدام سامان فريم ما نيغي نون اك ديغاسيون ني اندي جيب ني تانا بيرن ما muy gën bàyyi may dem ne nga xam ne fii rek taxoon ci kër Sëñ Babacar di woy baat ba na xëy lool nit ñi di comparé ak tooñ mu dem Sëñ Babacar moom daal dama bëgg a woy waaye baat bi neexul Sëñ Babacar di ko bay ba nag naa nga mën naa nga caa di ko def ne ko woyal te bay mbay doom ngay gàmmkat du fi gàmm way gàmm gàmm doom ba gi nii Sëñ Mouhamadou Mansour te ñii kat amul kenn kon ci jël sa baay wala sa maam di ko dellu lu gën di xaar ci yow daal ñoo baax rek waaye dañ ko def ni wëñ yi jaay teel ngir fësal mag ma nag bu déwénee ñu tànnaat ñeneen. tànnaat imam Moussa Niang mi nga xam ne moo daan jiite fii ci ñooy sëñ Babacar Si di jàmbaar lool sëñ Babacar Si nangoo taxaw ni ne njaboot bépp dem ci ginnaaw mu dem ci kanam tey nga jiite leen wóorul waaye kuñ ne kaa jiite ñu nag alaaji sëñ kaa dem ci kanam. ñu seetlu ci nag kenn koo xam ne dama ne xale yi lii mën a mën a wéy daw jalaa ji muy wëcc fii ci sëriñ bu nu gam ma ba topp xaaj Mansour mii toog di xalifa moom Moussa Arif Baye di ko way da ko doon waaye da ko doon dañ ko jox ndigal mu way ko moom mooy maam ab président baax te si de xaaj maam lañ ko daan wayal bu mu yàgg mu jóge fii maam Abdou ñëw ñu way ko mu ngi way def dañ daan way di neex na yéen déedéet ko ci gunge rek ñu koy jëlee ci jàkkañ ñu ko yóbbu ba ci kër yéen it ñu ngi leen jox seen way ko way dégg na sama moom da doon wax ñaara am ci àdduna bëgg ak mer ku bëgg lu mu ñaan yàlla nan ko ku mer maytu mag ñaaram ñun nañ merunu danoo bëgg yàlla na yàlla sax sama di jaay su may wax rek ci yow laa war a tàmbalee ndax di jaay di jaay mooy mi yaay yaay sama yaay alaaj Moussa Thiam bu jëli maar bis bi lu ne dañ ko ko koo xam ne ngir lan réussite ànd ak bi yëpp waaye dama ni ñi nga dendal muy Cheikh Ahmed Tidiane Diouf dama ne ko da ngaa nekk autorité ba noppi si xam ne woo la def la président Oscars xam nga loolu dafa waaye bi nga xam ne nag moom nga dendal mooy borom complexe daa baax li gën a neex ci jox mooy gaa nga jox la ko defee ñun ñii toog muy jaay si mbir mu rëy ba ñii tubaab la ak nga xam ne moom mooy Essa Fall. kaay nañ ma jox ma alaaj may kay jëwal du ma seen ñu ak sa Maodo sa première sortie bi ñu ko defee directeur général bu DER tey la Modou Gueye bu ñëwee àndandoo ak délégation bi Mouhamadou Rassoul Diagne yëpp ñëw na. sëñ Pape Malick Diop dërër Seydi Hadj Malick la bu soxla Karama yi bu soxla Oumou Xayri bu sëñ Pape Malick bi bëgg na mel mu waaye ki nga dendal nag moom mooy sëñ si Mbow kër ba benn xaar na président Macky Sall bu ko waxee lépp dem ci sëriñ Aliou li nga ko jox enveloppe bi joxe ko mi ngi nii ndax yow sa enveloppe bu gaaw a demee noonu da ngay ji ubbi xool ba man sa ginnaaw am na maire boo fi bàyyi boo xam ne il est disponible correct il est discipliné muy Massa Mbaye am Serigne Abdoulaye Amin ndax fexe na bëgg loolu laaw te buñ ko waxee kenn yëpp def ci Matar Diouf mais dama ni donc naan fii tabaski nga gis ne xaar bi ëpp ci kër Serigne Bamba waaye nag alaaj nekk da nga ñëw sant sa waaj waaye damay dem ci sa waaj neex ba daax neex xam ngeen mooy mooy monsieur le maire ki lay jox te doo laaj ñun ay góor lan ay góor lan nag boo nu mayee waaye boo nu mayee may waaye Demba Diop si borom sama borom bi lu gën a jafe ñu ko mu def vidéo ni bisu Pape Moussa Diop alaaji ma ñu Diop sama bis la bu ñane man ngay jàpp te la mu ko lépp def ko dama ne woon alaaji ma ñu alaaji ma mën naa ma ne ko pour yàlla soxla nga ni bëgg mais yàlla bi feebar xiif wala ku ko jox ndox mu naan soxlawul ni ko kon pour yàlla nga ni bëgg yàlla mi yor ni bëgg nag yàlla na yàlla dimbali waaye la présidente du conseil départemental Adja Soxna Koungheul soxna Seydou Koungheul turam suñu bàyyi ko duy tey yónnee na une forte délégation su leen wan ko léegi nii chef d' cabinet boo def enveloppe am solo nee leen ko bépp nanu ki nga xam nag dañ koo seeti fekk ko tàmba nee naa ko yow ñëpp nga sollicité ci réew bu dee dafa toog pour joxe te daal muy suñu papa suñu nijaay suñu xarit Siré Sey di kenn waaye di lu bëgg monsieur le maire tey nag dama bëgg képp ku fi ñëw mu xam ni yow mii la yàlla def tu es le premier la ville Mamadou Diagne Sy Mbengue dama ne gan ñi say gan lañu yow suba da ngaa war liggéey waaye da maa joxe instruction ca IPRES ñu ne ñëpp liggéey si may naa leen laa nawet moo tax man maa war a njëkk a si waaye bala maa liggéey dinaa toog di toog ba ngañ way sii di way sàmm way Pape Malick yéeg Cheikh Tidiane yéeg du kenn tëj Souleymane Ba Ahmed Sarr ñëw may soog a rek monsieur le maire jërëjëf du ma guddal su ma limee jiw waaye li tax may wax sama doole mooy sama papa ji toog yàlla na fee tëj daal di sëñ si papa si moom man boo ñëwee ma nekk ci boo ñëwul du ma nekk ci sécurité ngeen baal ma nag maa ngi koy jégalu waaye jigéen yu yiw yu rafet ñii yéen ñëpp ñu ngi leen di sant suñu hôtesse yu baax yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñi ngi sant Cheikh Mamadou la Diop bu baax waaye organisateur yi muy daayira Nihmat te suba ba léegi ñu ànd ak ñun ci bis bi toppatoo rafnu dawul sécurité bi ñi ngi sant monsieur le commissaire Bara yéen a fi gis léegi takk der yi moo may soxal ba mu sax demal nga wax sécurité bi ñu ñëw loolu bu ko nit defalee loo ko mën a alaaji dañ koo def exprès ni dañuy ñëw njëkk a wax nga xam ni bu xasee ba prestation yi commencé kenn du ne soxna gàttum si bu sëriñ Babacar Sy Mansour bu soxna ay desi benn benn ba dëgg dëgg recevoir te recevoir rakam soxna Fatou si biir Abdel Amin nga xam ne mooy jàpp si nee na boo demee loo fekk jàpp may ko mooy gën a ñëw mooy jàpp si ab di jàpp waaye bari personnalité lool soxna Fatou Reen bi soxna yaay Sofi si ak suñu yaay soxna Adja Oumou Kalsoum si ñu naan mbay ñu naan ko soxna Talla Mbaye nee naa ko kër si di xaj Malick bu doon parti politique yow la ñu dégg massification. mbokk yi ñu ngi guddal. li ñu mooy bu mu nga baal boo gisee suñu waxtu bari bii bay rek su ko ñu alaaj may ka tudd nit te waaye sama xarit bi jógee ba Brésil ñëw Alioune Thiam bi lay bëgg na dafa loolu démb nga jóge Italie yëpp di Seydi Hadji Malick waaye Maodo nag moo ne man Maodo ci koy dëwlin laa yor ñu ne ko luy dëwlin mu noo duggee ci man rek laay taxee ci yow yàlla na Maodo tax ci di ngeen xam ni Seydi Hadji Malick am na ñu ngi sant waa Habiba TV Tivaouane TV bu Argentine daam ñu ngi leen ziar yéen ñëpp waaye. kaw asamaan alxuraan benn ligne la fa mais amul commencement amul fekk nañ ko fa bindee mooy ni ñu ko bindee ci yuuru xale mu tari Faatiha ci boo xale yooyu doo ci fekk benn araf am na lu ñu tuddee xadratu loo fa taw xëy ma xam si rek ay maa ngi laa leen wax dugg ci ma wax leen bi moom jox ak Suleymaan nit yàlla yi dafa am xijaab yoo xam ne bu leen ko yàlla yëkkateelee ci la seen matalam taxaw dafa am lu ñu tuddee xijaabu ni bu ko yàlla dindee luy feeñ ci nit ki mooy taw bi doon xalaat am na lu ñu tuddee xijaabu abadiyee bu ko yàlla dindee xam nga luy feeñ taw bi du tayoo yéeg mooy am na lu ñu tuddee xijaabu nisba bu ko yàlla dindee xam nga luy feeñ mooy mooy la taw bi abraham mooy feeñ am na xijaabu nisba abraham xijaabu ifaada shahaada mooy feeñ shahaada xal xaq mooy feeñ am siru mooy feeñ siyaada ibaada mooy fay tawal dajale mooy fay allah iman yooyu la ko yàlla dafa dajale ko bàyyam bi Usmaan waaye ñu ko daan wax démb xoroja maamam ñu koy wax démb gunna li tax ñuy wax démb xoroja seen xaymaa ni xeeti tukulóor yi ñaar la ñoo ñoo bokkoon fa nekk ci gurdu ñiy déplacé jaar ci ji jiir dem Jolof ñiy déplacé jaar ci dem est ce que dem moo tax bu ñu bëggee may maam Ousmane maam Fawa xel yi jaxasoo est ce que ñoo bokk askan nit ba mu leer lañ xam ne kii kat ay la yoon moom moo war a jël. dinaay dégg xaaju Souleymane di wax ne ku ñu wax sa ñëw di yegg seegoo ci seen ajumaane lañ jël yàlla may ko màkkabay la mu jëm ca yàlla yàlla na ko moo tax sëriñ alaajmaa li amul sëriñ Babacar sëñ Abdou sëñ Mansour waaye sëriñ alaajmaa li jëm ko ndax alxaaju mooy aju jublu malik mooy yàlla yàlla ne kon sa jublu gi nga jublu yàlla nangu naa ko ñu wax alxaaju aju jublu ji malik yàlla alaaj ma déedéet mu ni fu yonent bi jegee tànk man moo roma des sama tànk yonent bi 92 moo doon malik 91 91 boo ci def 92 ko ciy teg boo jëlee maa 91 la faa war ko ko jógee faa war ko bàyyi alif bi 91 la teewaat ba Dakar 91 ko lay mën Muhammad 92 wa kulluma fa'alahu nawaytu fihi uswatuhu sallallahu alayhi wa sallam man ma war ma def rek yonent bee man la boo aaree Muhammad nag 92 lay doon sallallahu alayhi boo jëlee Muhammad mi ngi sa boo ko déggoolee 132 la la jox 132 la jox moo tax yàlla moo tax ba ci turu yàlla bi gën a mag soo ko bëggee ko salaatu ala bis mu jëlaat boo bëggee mu yomb jullit seen Muhammad arab tolloog waaye amul benn bisimilah àll bu mu weer bu ñu julli jooju inna allah wala ay gis loolu daal moo tax sëñ Aliou Aliou sëñ Ba wax na fexe ba doon turu yàlla ci seen taal bi moo gën leen jox turu yàlla moo tax El Hadj Malick jàpp ko ñaari yoo xam ne yooyu nag maam Xaaji Mansour ni min muminin muslimin aw kaafirin lahu shahada fi awsaafi yow mu ne boo bëggee xam seen Aliou mooy koo xam ne muy jullit ak yéego kenn ku ne bu déggee baal ak siraay daal am lu saa ko bëgg ñaar nag ñëw ñu commencé sama faata bii ci lañ denc ñett daaw si na Mahamad bii ci lañ denc xadru si na Mahamad xadru yi boo bett daa rek da ngay jëm ci ñëwul kamaal génn fa ngay dem def ci sama faata ngay def benn seen ay maal mën ko jàng ci juróomi maqaam yi ma leen bëgg a wax xaqatatul kaw muy maqaam yoon ci yëpp d'accord seen xamal mu ne ay mu delloo ko ci yàlla yàlla jox ko suuf mu ni talaata bu ñu indi ñu ci àdduna mu ni ifaadatullaahi daje xam ñoom mu ni nuurullaahi Muhammad Sall moo tax moo doon miin yëpp Muhammad nuuru Abdullaahi la daan mais waxul Muhammad ibn Abdullaahi du ñoo tolloo ca am même wës na biñ leen di dëkk. déparé ko ci alhamdulilah bi ma may ma mën a def salaat parce que moom ñetti la Seydina Muhammad allah bii ca tey si la bii mu delloo ko ci biir nit ñi parce que munoo Muhammad te awoo ci maqaama bilaal maqaama xamat fukki weer ñetti processus yi rek la am mu yuuxu wala di salli salaata wa taslima ala xabari ñu ne ko booba commencé ba njëkkee biraa mu ni salli salaata wa taslima mu ni salli ala sajidi xamal wala faala bi sabir mi ati aami muy maqaam rabila weer wa rek dañ di fukk ba mat ba moo ne xaaral ñu julliwaat salli salaata wa taslima ala xabari yëf yi dem ba mat ba xam ni nag doon nañu sant alhamdulilah di jaay wal qadami mu métti naa wala ñu dul jël weer ñaata fan la ñu ne ko 14 mu jël départ bi xam nañu waa fii alhamdulilah dinañ ko xam nañu waa fii bi ana amee la naa woo fa allah maa ngi leen baax salaat ñëw mu tëjee lii nii rek benn nit yàlla ñëw na ca Kaaba di ko jàng ñu ko dimbali ñu ma ko fi jàngee daaw ba léegi ñu ngi seen a jeex may ñu ko déglu moom la moo tëjee bi ni Muhammad nag ñu ne ko yàgg mu ñu nuuru alhamdulilah xar jaamu min allahi nuuru mu yàgg ay ñu gëstu ko kitaabu bi muy alquran moo tax nuuru mi na nuuri xar aw na ko aw na ko xekkaman moo tax nuuru Muhammad doon fiire nuuru Ahmad te adopté bi la parce que bi yàlla jigéen ci kanamu yàlla seen leer buy fecc ci wetam Muhammad ni yàlla yaa waxoon ne mën nga gën a bëgg ni gis naa leer sa wet mu ne ko kii mooy yow kii mooy xaritul Ahmad yaay xaritul Muhammad bi bii moo del ci ay mu zaw bi moo del ci ay mu rasul bii xum la bii xum la moo tax ñetti xum ñaari xum am ak ñeenti xum loola téere moom de xuma xul rek la xadru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy maqaamul xadratul jaami'a métt daal mooy xelaat bu góor mu tax alaaj maa ne yàlla da dugg ci àdduna maam Cheikh mooy foofu seen leer ni kat damay yeggal sa mission moo doon bàyyi bàyyi fa ay jéer ni saw fa yetti maa libuha ki moom téere yi dana fas yéene ñëw moom téere mu jul tudd Maalik ñëw moom téere yooyu ñu ko ko bàyyi ma saa dégg benn kilifa ni alaaj ma ne suba bu nit xëy na mu tudd ndax nee na boo jàng faa di nga jàng Maalik yow nit ñi man xaw bàyyi ma xar yóbbu Cees yàlla yàlla yóbbu la dara moo di jëfe ne alquran rayu sunna ragalu sharia ni alif bakar alif ba alif laam yi ba ci minal jinn di wan as ku ci gis luñ mën a jamee seen sëriñ xaaj maa yëkkati sa loxo nga taal la amul ay li am yàlla diw ko diw ko sax njaboot si baaw kay ne luy ñuul ci fàttali ko fu ma ko jaani kalimaatoo xutawaatoo wala xasaar bi yëpp ak am xasaatal ci ku mu ko jëlee Cheikh Seydi Hadji moo tax Maodo moo nekk bopp ba kenn xamul woon ko def Alaaji Maalik juddu ñu gane am ñu jàngal ko alquran Seydi Hadji Maalik mag ñu jàngal ko xam-xam Maodo wër ñi am xam-xam ba am xam-xam ba pare ba ña ko doon jàngal mu jàngalaat leen soog a def parce que ñi ko doon jàngal ñi ko doon jàngal ci yàlla xaral si ne rabbika lazii xalaq xalaqal insaan min alaq akkarahu rabbuhu allazii allama bil qalam ca la doon jàngee sëriñ Aliou bu jàngee bil qalam ba jeexal ko dellu si waat ñoom jàngal leen ñoom allamal insaan maa lam ya'lam da koy firi téere ba pare nga ñëw ni ko toppalaat ma téere bi mu toog ko wëlbati ko benn ku moom moo koy jàng bu nit ñëwee yow li koy jàng la koy bàyyi su nit dee ñëw mu tourné ko ci côté nga defee moom la ñuy toppal fekk yow li ko jàngal yow la toppalaat moo tax yàlla teel a ne ndax xaqatu Muhammad yi bu la jaarale léeg-léeg benn aaya alquran bu ne da nga ci am 33 firi zahir ak 33 firi baatin moo tax daanaka ñooy mu aaj naa rek dara du ma nga ñetti téeméeri balluwaay xam-xam ak fukk ak ñett nekk sama dënd bi nag alaay maa rek xaw ma moo koy waxante jàll moo tax loolooy nit ñi moo tax sax fi aarasaa ne xëy na léegi xam-xam bi ak berkeel leen yaa ko samp ci ëttu jaar mu ngi ginnaaw xaw a gëtal mën a am si jaar mu ngi ñu xóoy gi gars yi di tuddoo njaboot si ne ajmaa ne ak daan xam-xam bu zilaat moom moom la ñu fooy moo tax xam-xam newul ci téere boo gisee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëguloo ni malaaka yi sax dañ daan jël si leçon ci Seydina Muhammad parce que wa allama Aadama al asmaa kullaha boo gisee taw na boobu fa yàlla woo malaaka yi ni leen ñëw leen jël leçon ca aadama tànn boobu Seydina Mahamad bu tolloo ci maqaama Jibril day ñëw di ko laaj maam iman maal islam mali ahsan laajal nañu ko ñun parce que loolu intéressé wu ñu parce que yéen a jàngal mais Jibril question bi ñu koy posé la ko jënd bi toll mooy tolloog la ca seen xam-xam ñoom ñu ne li ñu ci toll mooy toll suñu xam-xam moo tax Jibril naan leen ne luy islam luy iman bu ñëwee ci melokaan deqeetul kale bi booba dafa war a jël leçon ya malaaka yi jëloon ci maam aadama nekk professeur ak boo ne nag professeur médiatique rek moo tax yàlla daan def ba Jibril laa jóge asamaan di wàcc di indil seen na Muhammad aaya yonent bi tare aaya ci Jibril yeeg seen yàlla naan ko Jibril ñaan yonent bi sagal la Jibril waaye laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi kii xelal la yëpp nga di tare aaya yi mu yokk yeeg seen sutura ko waaye bàyyi ko yeeg seen soo ko jàng aaya yi xam-xam moom la sëñ Aliou Malick ba mu samp fii ci Tuuti Yàlla moo tax sëñ Ahmed Diagne daal maa ngi koy nekk léegi nit mës na ñëw jóge fi sori jeexal xam-xam yëpp ba dund maa leen mu jeexal ñëw nit mu jeexoon ne fuñ lay dalal mu ne ko tàmbalil ma ibnu buur a xaw mu ne ko dañoo tàmbali aju bu mu waajatee parce que mun nga comprendre nit ku dem ba jeexal naa nga koy aju mu ne ko baaxul aju la la ñu ibnul aju xam nga baax di jàngal. mu ne ko fii xafida min maaniha mu ñu mu ne ko dalal commencé naa jóg waaw moo tax si baabaat ko inna la waaye benn balaa ko si jaar seen cheikh nee na boo jëlee xam yàlla jamono yooyu xam-xam moo lay sàkku gën yooyu ay sàkku xam-xam zamanu kunna wa kaana an yatlubuna rizqan wa kaana bura fi kulli xaar zalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa am na loo xam ne lu tiital yàlla koy defal ñu jagle la moo waral arrahma ak arrahim baatu arrahma alif rahma lu tax ci baat bi loolu xam-xam da koy la nun am benn doom lu tax taa am ñaari doom lu tax am ñaari doom lu tax baat bi lu ko jaw ko ci rahman benn doom la bu doom bi moo nga dégg yàlla sa jeex ne moom mooy maanaam tontu garab bi xam lu fi di oh, am bàyyi koy doon nee na buñ ko tëjoon nga dégg yàlla bàyyi ko genn wàll jël tomb bu mu représenté ci tomb boobu mooy lépp baaxul nga seetlu la nag wala nga gisee di xew wala fu doon dem chef bi bu yaari maçon bi ñun sa PPL simple la di la baax alaaj maa ngi nag jaar foofu am xam-xam jeexal xam-xam waaye gën jubal xam-xam méngale leen rek diiru dund nag na seen aaj maa lu sharia bañ lu islam daan seen aaj maa ngi ne mosuma ca jaar foofu mën naa def doo déglu nag laajteel ñu leer la parce que ay maa ngi yar ay njabootam ci lool jël sharia teg ko seen kanam ndax yonent bi su ma ja'alnaaka ala shari'atin minal amri la yàlla wax seen ay maa moo nekkoon ne man sama waa kër bu kullu ma faa bu lépp lu ma jëf na ma la ma jëlee ne ma du sóor bu rey seen imaam sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci faa Quraan bi tees bu toll noonu seen ay maa bëri na koo xam ni boo ko liir loo sa waa kër tëjaatee moo tax ni mu bind ci kifaay duraat bi ci sunna ci tere àdd ci tere ger ci tere la xadd aara amru ala man lam yakun muridu xam see jaxal ma chefa nee dem ba ku matul taara bi woo dës rek mu ne ku la maa maa tawal mu ne ko jaxalu bi ma xam ko si bu dee ko te na wala bu docteur bi ngir du sa ngir allah maa ngi wax nga jëm yàlla la te nangu doomam bi la ko defal mu ne ku la ma maata waaxal bi mun jaxalo im na bëma xam na yetta baax wax na bëgg ñuy barkeel ci doom bi di ko laaj waaye su jur bi su dool xelal jël mbasin yi nga xam ne benn xool mën lay jël solo moo da nekk mooy unnal faasaka wal dajëla laax i laaji mina laax fa kay fayu xagi bàjjala yow mu ne saay-saay ak kuréel dañoo sot yàlla naka la ñuy jege leen di ba mën a yegg ci yàlla moo da ne bàyyi ma kaa jox leen bu mbadu jox kon moo tax base am yëpp mooy xam-xam beneen bi tam mu ànd ak xam-xam bu ànd ak xàmmee ndax borom xam-xam yi li seen cher ne ne jeexal ci téere yi réer ak bëgg nga gën a dox ñëpp moo tax alxuraan ba ci yàlla bala mu lay jàngal da lay préparé ndam la mu lay jàngale baax bi mu muy yéen a minum rasula yetlu alayhim aayaatihi waaye amaa yuzakkiihim ba noppi su koy waxal ndax ngay raxas ndam li ba mu set soog dee def xam-xam لو لو كان يحيى بدون تبقى شرفة لكان الإبليس مولي بفاق أني خاق ما نقول لك رجل يعني إبليس راو جيب كون مولا مولا مولا سيف سيد عائد مالك أمنا جيب تدور لك دعم ما العائد مالك فيلي بوقا ما سيد عائد مالك فيلي بوقا ما مرحبا نقول لك يا تجول دول باكار دول فوتا دول فاما يا الله مولا مولا فهبا مين لنيا مجفين مين لنيا وجعلوا من العالم الشخص خطر بجلد عليه بكل معاني قم هذه التربية ويجب يخلي ويجب يخلي صعب خير من يكون دائما في الخير والإحسان مرسيش أن نتعلم يوهو من مسلم فقط مجيد لهم من تكون يخدو ولا بنت جالي رسل تاسي عليك عليك إني قلوب الباطل تأرامي الحق ما شيء في الأعلى دك مويل سيكون سيكون يونت في أي نوع نوع سيدي أعلى من القول في المويل دكو kam na ba xam kam kam wax nga ci ne xaymaa yoo xam kam yegg bu dee ne ñu yeggale ko ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw sax amul commentaire Souleymane Ba loo dem. aouzu billahi mina shaytaani rajim الكوني فكون الكون بكلمة كن وغالب فيكون هو الحق الذي تنزه عن الحق إذ لا يلحق عليه الحق من أرسل رسول الحق بالحق للحق فكان حقا عن حق لحق بحق فحقق الحقائق حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عنه أس الوسائل والقتال عارفين لهم حقيقة صاحب الفيض والختم والكتم يعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ وأما أبو العباس أحمد التجاري فهو شيخ الكل ورضي الله تعالى عن حامل اللواء الطريقة المشارك إليه بالبنان في الأحفال في السودان والبيضان سباق الغايات وصاحب الآيات والكرامات من لا يجارى ولا يمارى ولا يبارى ولا يداهى ولا يلحق مبارك له بغبار ولا مماري له في من المال L'homme guidé par sa prière et son anger a réussi à combattre l'ignorance et l'exploitation de l'homme par l'homme la maladie le prix que celui des générations de la ورضي الله عن جميع أبنائه وبناته الكرام radiyallahu ta'ala anil mukanna bi borom bone kaare man ishtahar bi khalifa Abu Bakr khalifatul khulafa'i wa abu اختصارا اقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى ñoo di ci waroon wax wax ko tabarakallah wax ci sama jafe ko maa ngi leen kilifa yi nag di leen kaw sëñ Ahmad bu nuyoo baa ngi noonu bàyyi bi bu nuyoo baa ngi noonu Pape Moussa Diop rajo Ndeye Diop tabarakallah ak tawa muy ñaari seex yi yàlla na yàlla defal tawfiq Cheikh Seydi Mouhamadou Mounir bàyyi la taw góor maa ngi leen di yaar di sa xos ak sama xos ak bu ñoom sii

Misericordia que sin él ويزيد الحاجة أما نتوى تبارك من الإبا بيان تلقو منطق تلقو أرو تلقو أصول تلقو فقه تلقو والمخالي بنينا إذا انتبه منه وقضى لله في قدرة السيد أو لحال النظر كسائر صلاة المسافر أو خوف بخضر قدم منها وأحرم القضاء وجلس بسائرنا ولم تكن تنيته ورب ابن مالك موصول أسفل الذي كل سجدته ولا إلى مخشود لا تشوي ويا أرض محشر المشلة واهدموا بالتي أمل استبدلا أرض الكبيرة والنور تشتى فراغنا ونينا وعروج ربكم فحرر لمن معنا مشي رحمنا ألي سلامه ولا ما يسمنا سيد الحاج مالي بكر الدولة ضرنهم وجرفا ونفرهم فحرر لمن معنا مشي رحمنا ألي سلامه ولا ما يسمنا أي والي أرمينا لبلغ سلامتي صلاتي عروض البدر سرك أحمدا أنا من الأشجار والحرب والثرى مع الأهل والبافين آشار أحمدا نرتب ترتيبا قواعد الخشيه اظهرها جمله داخل منهجا اجل مرارا وفر وابسط مكملا مهددا رجلا رملا سارا الى اليدا وسارقا في فر الى ابقاء الول وسط الرسول المصري وتابعه تابعه تابعه toog ay juin décembre ba juin bu fekkee da ngay def ay juin mu dox sa diggante ay juin ngay jëfaanati kër gi ngay léegi ma koy jëlee. dinaa xaymatiin. kon moo gis ñu doon ay juin di dox naan béy bi la bëggee dox na si ko xayma waaye benn la duuru. bal himmatiin misla ahmadi Wow.

koy def de. waaw maa nii. bi ba tey jënd. te moom mooy jàngal sa koo. wàll ndax. ak ndax koo. man tëddee. waaw waaw waaw. bayaane. ndax man tëdd mooy jàngale ak kulliyaat xam sa bu dina de kaas. jiir su wa faradun asru nawoon wa kaas mooy jàngal. mamaa ni xaar ba biir bi mu sëy bi. kon ay mun bi moom peut être xaar yu la lafdal mutaabaa wa fii ni kira isnaaru muslim wa maa ilayhi muslim sirbi fasaxatin murakkaba wa إذا تكلم وبالبلاءة والمفردة وبالبلاءة كما يدوس ومن لم يشتغل الفرد كان هل يستطيع كان بربي ما لكم تكبتم علي كتكبئكم على بينة إذا يعلي وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ويدركك ومن بلد في المجر والموسي أما إذا كان سروري بين الحج مالك يا نصر النصور Sénégal la ko baax loo ko mooy daal صلاة الفاتحة كم سر كم مسلك الأسرى كم مسلك جل الرسول نرمى أصدر أخلد نصر الحق نور الفيل حق بالحق نور الفيل حق بالحق نور الفيل تبدو لبوي لحسواتي